asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki àddina mbokki lislaam bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen fàttali xew bu mag franco arabe maam Abdoul Aziz Sy Dabakh ñëw fa seeni def seen conférence annuelle de récital Coran di xale yi di tari alquran kañ la 4 septembre 2022 fan ca fi nga xam ne mooy école neuf Daaru Xuddus ñoo ngi fa seeni woo di ci woo képp ki wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah franco arabe maam Abdoul Aziz Sy ñoo la fas yéenee woo foofu ci bis bu màgg boobu ñuy nag fa tabarakallahu ki nga xam ni moo jëmmal bis bi di agence immobilière jël fa service sponsorisé li nga xam ne moom mooy mbir mi seen président boobu di Samba moo di Jakite dina fa teew incha allah rabbi ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi fas yéene dugal sa loxo ci bis bi kon ñoo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp. di balaax ñëpp di jox ñëpp rendez-vous nag la 4 septembre 2024 à ne pas rater à ne pas manquer wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismillahi rahmani rahim li ilaafi Quraysh